عقلنا منوكو قول والجن أو بالملك منوكو رسولنا دار الفجر عقلنا منوكو قول والجن أو بالملك منوكو أدنى منوكو قول والجن أو بالملك منوكو ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax jamono bi tembe yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média di site internet boo xam ne lépp luy information foofu nga ko mën a amee nag ñoo ngi ci waañu Maam Jaara Bousso di waañu mag wi fekk fi madame Dieng borom Njembe Dieng ak maari dëkk ba. Ndigal yow soxna si. Awa Gueye bàjjan Awa Gueye Njembe Dieng moom it xam naa waa Njembe Dieng lañ daal ak waa Mbari ñoo fi nekk nan nga dundee waañu soxna Jaara Bousso bii tey ñu fekk fii. Euh, waa ñu yaatu kar macha allah ak togg gi ci yenn condition ngeen ko teg ak ban xeetu toggin moo fi nekk. waa ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu borom kër yi nga xam ne ñoo ñu bàyyi ba ñu mën a ñëw fii di sant sunu meeru daayira dégg nga di sant waa Ngembe Jëng yëpp di sant waa waañ bi yëpp maam jaara nag mënuñu koo roy moom ba dab ko waaye ñu ngi jéem ku ñëw ci barabam bii di nga xam ne liggéey na ñoo ngi sant yàlla bu wér man nag damaa mënul wax ci mbooloo. waaw loolu rek laa moom la ma ciy sànni. mënoo koo conclure mënoo koo xam bëri na ah, li fi ñëw ciy daayira bëri na bëri na torop torop torop waaw ah kii xool bëri na li fi ñëw ciy daayira bëri na torop mënoo koo xam waaw ndax ñëpp ah déedéet ñii ceebu ginaar ñii bu yàpp ñii bu jën laaxu bisaab am na fi. xeextu baax baax boo bëgg ci waarndu bernde am na fi palaa bu ne am na fi bañaam suppu kànja sax am na fi lépp a ngi fi kon nag ah ngurbaan lépp am na laaxu caaxaan yaay bañ fii kay dara manqué wu fi sëñ bi boo bëggee dégg dëgg dara manqué wut. ah dañuy yóbbu kër sëriñ si taras tasaare ñi nga xam ne ñëw nañ te amuñu dalukaay fépp la ñuy tasaare public bi yëpp la ñuy servi kenn du xiif daal. fii ku fi jaay lekk moom sànni nga ko ne kenn du ko jënd. lépp lu sedd loo xalaat ci lu neex am na fi waaw lépp baax na lépp moo ji daal. rafet na ba pare. Euh, comme ni nga ko waxee lépp dara manqué wut. lépp am na fi laa la wax. lan nga xam ne jamono bi hmm. ñëw Porokhane amuñu ci waañu maam jaara. waañu maam jaara waañ bu mag bi ku fi ñëw di nga lekk te bu yóbbaale bu la neexee fii dara manqué wu fi. waaw ak genn wàll ndax li fi nekk dañ koy togg dañ koy joxe rek ñun bëgguñu ci dara waaw dañuy joxe rek di joxe di bernde rek waaw. kon cant ak ngërëm da koy ñeel moom waa Njembe Jeng ak waa fan. waa Ndigal Ndiaye. dëkk Mama Samba Ndiaye dëkk Mama Ndigal Ndiaye ci ban région la ne. Thiès Thiès. Thiès kaay waaw. ci penk bi foo ko yóbbu rek. fii lay leeree seen portail Baol Média FM Ibrahima Khalil Diop ñu dem Mbari te ñëw. Mbaaxeen kon. xam nañoo bàyyi ko fële ca diwaanu Mbaaxeen. xam naa pare sax dana ma leeral Mbaaxeen fan la féetee. ak Mbaaxeen ci ban département la nekk wala ci ban commune la ne. kon Abdou. yaa ngi seen portail Baol Média. waaw waaw asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu julee yàlla. bi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen sallallahu alayhi wa ah, di wax ne fii mooy waañu maam jaara man maay jëwriñ ji dëkk Mbaaxeen tudd Abdou Guèye ñi ñooy soxna yi mu nekk ci wàllu waañ bi di rëgal waaye nag fii li ma la ci xamal mooy sëñ bi fii mooy waañ maam jaare bu mag bi kon li nga doon laaj sànq ci question yi naan euh, ndax añ yi dañ koy kii sunu biir wala fii ku ñëw da ngay xewlu ndax loolu la fi borom santaane uh-huh. dafa santaane ñëw xewlu ñi ñu fi nekk dañ koy yaatal ndax buñ ko defee won nañ mi du baax dañ koy jàllale Issa jàllale rek lañ ko doon ku ñëw xewlu dinga nga xewlu na nga war a xewloo di naan boisson di nga def lépp daal pomme ak raisin rek yaay choisir daal lépp fi am. li nga bi la hmm? mën a tënk. daara mbaari bi la mën bi lu ñu tënk mooy neex ma. waaw si neex ma lañ tënku neex ma bi nag ndax année bu ne ñu ñëw. waaw année bu ne ñu ñëw te ni ñuy ñëwee année bu ne liñ fiy fekkit nañ lañ fay fekkee sagat amul na xaaj ak seen ñun ñëpp benn lañ. fii loo fi soxla da dem si nit mu jox la ko boo soxloon kudu ci waar tey amoo ko da ngay dem fee jël ñëw yëngal nga soxla gën amoo ko da ngay dem jël ñëw dëbb ba bu ñuy sori noo xam daara bi hmm. ndax li ñuy berne nii ci seen poste la jógee wala daa am boo xam ne moo leen tënk ba saa bu màggal bi jotee ñu partagé leen xaalis kenn ku ne dem nduggi ñu liggéey wala yeneen liggéey seen xaalis pour ah, aha léegi sunu daayira dafa am ay yu ñu ko tegee bi maanaam dañoo yor daayira boo xam te ne dañuy am lu ñuy def kenn ku ne kenn ku ne la ngay def ah, loolu ngay cotiser moom la ñuy jël dajale ko jënd si suñuy xéewal ñëw pour berndal nit ñi amaana nag am na ñeneen ñu siy jàpp parce que loo gis rek am na keneen ku si sukkandiku ku si xam ne da siy ñëw jàllale si message bi mu bëgg a jàllale muy war nekk ci wàllu liggéey ndax liggéeyal yàlla moom ñëpp ci xaj di nga gis koo xam te ne day ñëw jaayante ne man lii laay joxe gis ku jaayante ne boisson ba ak ñoom ñu raisins yi ñuy def yooyu yëpp daa am ñoo xam ne dañ koy barkeeloo ci màggal gi waaye moom ñun suñu daayira moom dafa am cotisation bu ñuy ja teg si li ñuy wàccee pour ñëw. mas ngeen am benn jafe ci wàllu togg yi. déedéet togg ba pare. Hmm. togg ba war a melul yi. waaw waaw ndax ñàkk a toppatoo soxna yi. wala ñàkk respecté togg bi ndax mi ñu takkoon yi. waaw ndax contrôle boobu ba war defu leen ko ba togg noonu nit ñi ñu ko jëfandikoo. waaw togg ba kenn du ko jëfandikoo nag jëfandikoo moom wax dëgg yàlla musul am bu ma fekkee man waaye nag erreur bi moom mënut a ñàkk des fois erreur am ci benn côté mais du chaque jour li ma la xamal daal mooy fii boo bëggee xam tooke gi nu mel xaaral añi di nga añ di nga naan boisson di nga lekk pomme di nga lekk banaana waaw te loolu lépp la ñuy yaakaar naa de xanaa bernde moom mënut a passé loolu. ginaar a ngi fi naga ngi fi xara ngi fi bëyee ngi fi gëléem a ngi ci ginnaaw ah ñi ngi sant yàlla daal bu baax di tax nag di waxaat jigéen ñi nga xam te ne ñoo fi ne ki tax ñu ne fii daal liggéey ba am lii. ñun buñ fu ñëwee nañuy bëggante yaatalante tos col col gu yiw tey liggéey ndax loolu col gu yiw mayul dara du la ko may nañ xam ne kii kii e waral bés bi daal liggéey liggéey liggéey ba yàlla fay ko bés bi ñu daal loolu lañu mënoon a wax si lu ñuy seede ci bis bi ah dina sant nag di la gërëm di saxal te njàlla mais nga xam te ne mooy jëriñ ju ngeem ba mooy adjoint bi daal mbaaxan gi ngay laaj ci région de Thiès la bokk. ci région de Thiès la bokk. waaw département de Tivaouane arrondissement Niakhène. si kanamam. Kébé maire ak ñaaxeen mu ngi ci ginnaaw mbaaxeel ñaaxeen na ko jiitu ci côté bi nii mais ci côté ba ne ndaan naa ko jiitu waaw loolu daal la ama lu ñuy leeral ñii nag ñooy yaay boo yu ñu àndal ñooy defar añi di benn jaam ñi wax dëggal di togg togg lu neex ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal it lii yàlla na ko yàlla yokk ndax war na fee ma a am yàlla dogal na maa ngi ko fi door a gis waaye dañuy ñaan yéen ñi nga xam te ne yéen a séq rajo bii Baol bii yàlla na yàlla taxawu leen guddal seen fan yaatal rajo bi ba mu doon ay télé loolu lañ leen di ñaanal. waaw comme li ma lay wax Ibrahima Khalil jóob moo di nee naa la portail Baol Média moo rajo askan wi nee na la première fois site internet wala rajo ñëw teew fii ci waañu Maam Diarra pour def interview kon day wax ni ah, Baol Média FM. moo tënk lépp moo tënk lépp tamit lépp information Baol Média moo leen koy service kon yaakaar naa ni ñoo ngi ci waañu Maam Diarra ba tey Ibrahima Khalil Diop dañ naan diis rek daal di defaat demi tour daal di dugg ak feneen ndax lépp daa war a yaatu ba tey comme ni ñu leen ko waxee ñoo ngi ci waañu soxna Jaara Buso muy waañu mag wi nga xam ne moo nekk Poroxaan ah, ñi dajale seen i koppar wala seen doole ak seen ñàq ngir toggaay bernde ngir servir gan yi nga xam ni ñoo jógee fu na ci àdduna bi ñëw ngir màggal si màggalu Poroxaan di sàkku nag képp koo xam ni yaa ngay bàyyi xel seen portail Baolmedias FM foofu kese la lépp li kumpa moo leen koy taaxaree ñoo ngeeg yaa ah moom muy jiite waañ bi nga xam ni moom it ci daara mbur bi yande lan ngeen di ciy kàddu ci wàllu waañ tàngoor yu ñu fekk fi metti na jigéen ñi ànd ko ak góor ñi ndax mas ngeen ci am benn jafe-jafe ci wàllum togg ba pare jëfandikoo ko maanaam jafe ndax ñàkk a sell wala ñàkk a toppatoo togg wala ñàkk a contrôler togg ga. waar fakal la macha allah di sant rek di sant Serigne Touba ak maam Cheikh di sant tubaar fakal la macha allah soxna jaara bu sox di ñaan képp ku teew ci bësam bii yal na la suñu borom taaf ci barkeem di wax ne bësumaam maam bii lu mu tàng tàng tàng dañ koy ñeme ndax moo ko jar ndax macha allah kuy liggéeyal soxna soo xam ne moom dong la ci Sénégal ci àdduna muy jënn jigéen ji am màggal gi loo ko sonnal jar na ko macha allah di wax ne dañuy dajale suñuy dërëm mu bëri mu néew lépp yéene wuñ ko fenn fu dul bésub maam jaara bu so bii di sant nag waa daayira bi macha allah farlu nañu am nañu takku am nañu taxawaay dara ñorul leen nag lu dul Serigne Touba ak maam Seera Fall kese moo ñu ñor lu ñu am ren ba déwén dajale ko indi ko fii waañ wi li muy tàng tàng yëguñu ko dafa mel ni galaasay wàcc suñu kaw yëguñu tàngoor wi ngir lan liggéeyal borom poroxaan ki nga xam ne moo waral bés bi berndeel gan yi ñëw bëgg kenn ku nekk tubaar fa kàlla macha allah doo namm dara ci bés bi loo bëgg ñu jox la dinañ togg jox la ba mu neex nga lekk ba suur naan lu seddu guy waxtaan ak yow ba sa xel dal loo bëgg ñu defal la ko di sant daal Serigne Touba rek sant Serigne Touba rek. ñu leen di euh, nuyuwaat te di leen seeraat bu baax a baax ba tey ñoo ngi ci waañu soxna Diarra Bousso wi ñu ànd ak yaa na ko jóg maa ngi ko fekk mu yëngal soble ci li commencé dooree muy togg ceebu jaga noonu la am ah, yaa na koy bàyyi ko fële diwaanu mbuur yaa ngi seen portail Baol Média FM. leer na kay ana tey buñ bëggoon a xam dip ba nga mbuur Mbour ñëw ci waañu maam Jaara yi ban nekkin ak nekk leen ak xeeti bernde yi ngeen togg nii bu ngeen paree fan ngeen ko jëmale. waaw gannaaw bu ñu sante yàlla jund ci Yonent bi ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool Mbacké te wér ndax lépp tey maamam moo ko waral ñu nag Mbour lañ jóge nekk rek taalubéy Serigne Touba waaw di ñaan nag yokkute ba wér lii nag dem ba léegi ñoo ngi fi. togg nañ ay ginaar def salaat lépp daal liggéey nañ ko tey jii ñoo ngi si añ bi fas ko yéenee def rek ceebu mbuur géej ceebu jaga suñu paree nekkaat ci reer yi rey nañ xar rey nañ gileem xorama ginaar laaloom xar fii daal dara manqué wu fi ñu fas yéenee ñaan nag si barke maam jaara bu sa rek yokku ba yëg ko ndax liggéey jariñu la ñëw nañ fi daaw yëg nañ sunu yokk ñëwaat nañ fi ren yàlla nañ bu dewee déwénee ñun ñëpp ñu teewaat fi ci dara jay sëñ Fallou حجيجي أدنى منوكو قولنت والجن أو في الملك منوكو رزقنا دار الفجيجي أدنى منوكو قولنت والجن أو في الملك منوكو أدنى منوكو قولنت والجن أو في الملك منوكو